wajxal jihaadiya ka yawmi badri mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi ak Seex Muhammadul Basiir ibnu Sëriñ Abdul Xaadir moom mi fi teewal xalif général des Mourides Sëriñ Muhammadul Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal may ko ñu ngi nuyu ministre bi di nuyu gouverneur ak préfet ak sous-préfet di nuyu mbooleem chef de service yi ñu àndal di nuyu kilifa yu tedd yi fi toog di nuyu maire yi ak chef de quartier yi ak chef de village yi yépp ah, bis bii nag li waral daje bi ku ne xam na ne mooy bisu màggal Tuubaa ndax bis bi rëy na rëyaay woo xam ne boroom sàkk woon ci loo xam ne muy sant ci boroomam ak di ñaan yàlla bu ak see ñépp santle ko ci yàlla kon mu mel ne jullit yépp am nañu ci wàll te lépp lu ci waay def mel na ne sa bopp nga ko defal kon bu ko kilifa yi taxawalee ba egsi fii jiital ci Cheikh Mamadou Bassir ak ñi ko ci jàppale gouvernement bi itam am ci taxawaay bu ràññiku ca ba ñu ko tàmbalee waajal ba nëga ni def ci ay daje yu takku ànd ko kilifa yi ba agsi fii kon jataay bi mel na ne jataay la boo xam ne war nañ leen ca sant gërëm leen ci mu mel na nag euh, mbir moom ku koy woote te ka nga cay woo am ca wàll mu war a ñëw def ca wàllam mel na ne feeñ na fii tey ndax mboolem ñi fi jël kàddu ci chef de service yi ku ci nekk la nga wax wane na ne am nga ci yéene ju rëy te am nga ci taxawaay boo xam ne jéem nga ca sa kem kàttan donte ci ndigal nga ko def muy ñala yilif feeñal nga ci sa cofeel ak sa yéene ah, bis bi nag moo toll noo xam ne lu ñu ko waajal waajal du ñàkk mu am ay benn yu ca des ndax bu ñu demee ba màggal gi des ñaari fan wala ñett ngir gan ñi ñëw ñu am yoo xam ne jéem nañ ca waaye teewul des na kon loolu dafay am lu mu tegtale loola mooy bu bu ñu dëgg dabee rek tañ di ko wax nañ xam ne nun ñii ñuy dimbale di ñu jàppale si ñoo war a xoolaat suñu bopp te am neneen nuñ ko war a waajale ñu bàyyi xel ci ne màggalu Tuuba organiser ko ci nawet lu metti la ci ñépp waaye ci néew ji doole yi la raw ndax am na ñoo xam ne bu doon taw noor ak nawet mën naa bañ a nekk jafe-jafe ci ñoom ci fa ñu dëkk mën naa bañ a nekk jafe-jafe ci ñoom fi seen oto di jaar waaye am na ñoo xam ne bis bu ci nekk dana wecc weer ci ñoom ndax métit ak néew doole kon ñooñu nag mat nañoo bàyyi xel te waajal leen te li tàmbalee 2019 bii ñuy waaj a dugg ba ci 2026 jàpp 2027 mu war a nekk juróom-ñeenti at ci kanam jàpp fukki at màggal gi nawet lay tase kon loolu kenn ku nekk war na ko bàyyi xel te néew ci doole yi ñoo ciy gëna a ndax ba fii may wax yéen am na ñoo xam ne gan ña daan dal seeni kër jafe-jafe la ngeen ñu mën a agsi ci seeni kër ndax bañ génnee seeni kër yàgg na te mën a guñ caa dellu te noona seeni kër mel wàllu dund ba it noona la demee te nag li mat a wax mooy man ñi nga xam ne ñoo jiite woon yoon wi sëriñ Touba seexal leen ñenn ñi di doomi ay sëriñ Touba ñooñu ku ne xam ne jamono bañ daan organiser màggal gi booba jamono neexul ndax booba ñi ci gën a jekk ñu ci bari ay fas lañuy wal ñenn ñi di dox ñi fi daan indi mbooloo mi ay camion lay doon yoo xam ne bu ñuy dugalee seen benn tànk ci biir bi ci des a nga ca biti nga xam ne nekkin wu tar la ñuy ñëwee ñi ci des dugg ci saxaar bi kon loola ñoom nañu ko daan organiser yaakaar naa daawuñ ak lépp ci gouvernement la ci ëpp dañ daan jiitu ànd koog donga yi la leen sëñ Tuubaa baaxe lépp nag ñu def ko ci ba mu jeex tàkk donga yi fekk leen ci loolu waaye dafa mel ne fii mu ne buñ ko seetee li ci ëpp dañ ko bëgg a yan gouvernement bi te bu boobaa ana nun lan mooy suñu warteef ana nun li ñu sëriñ tubaa defal nun fañ lan ko war a féete kon loolu war nañ cee bàyyi xel te seetaat ko bu baax a baax ndax kenn ku ne boo wéetee da nga xam ne sëriñ bi féete na la fu ne waaye yow nag war ngay xalaat fan nga war a féete sëriñ bi kon nag bu fekkonte ne bis yi ñuy màggal ci at mi te màggal bu ca nekk ñu woo ci gouvernement bi mu def ca la man ak la mënul bu ci amoon lu ñu leen ci wàññil tuuti dana tax bis bi bu agsee dara bi ci suuf ci seenu wet loolu nag waxuma ko ngir défendre gouvernement bi waaye damaa xam ne loo xam ne yàgg ñépp a ko bokk te li leen war fii war na leen feneen te nun kenn nattablewul ne Sëriñ Tuubaa mënal nañu lépp lenn lu nekk mënal nañ ko suñ bopp kon nañ ciy waajal suñ bopp li am solo mooy dëkk bi li muy rëy rëy ak li mbooloo bi bari bari quartier bu ci nekk am na kilifa gu fa féete benn mu nekk sëtu Serigne Touba walla mu nekk seex boo xam ne sëriñ Touba seexal maamam mbaa baayam kilifa googa bu yëgoon ne la ko Serigne Touba defal war naa mën a saytu quartier ba yépp waajale ko màggal bi ba ndox du taa fenn mbalit du am fenn mu jàppale leen ci dund ca la ko sëñ bi baaxe war naa xam ne war naa weesu ganale ganu boppam kese kese kon kenn ku ci nekk nañ waxante dëgg te teg ko ci yoon du lu ñuy gàll xalif général du lu ñuy gàll porte parole bi yoon wi dépassé na foofu màggalu Touba dépassé na foofu sëriñ bu nekk quartier ba nga nekk fexe la jagal lu fa nekk sañ nga loo ca lëntale nag nga ñaan ñu indi la technicien bu la mën a accompagner ba loola jag waaye nañ delloo Serigne Touba njukkal te xam ne sëriñ Touba li mu ci defal jombante nag kenn ku nekk foo yi ci sa kër fas yéene rek di dund dund koo xam ne gii ña ca des um bunda leen ñey xiif ak ñey mar dara xamoo ko ci jéemoo ca lenn nañ jéem a jóg ci yoon woowu te jàpp ne sëriñ bi ca bisam bii buñ ko defee suñ lépp jàpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf sëñ Modou